na décideur africain yi ak ñu nekk ci diaspora bi ñooñu la ñu doon sargala yéen a kaay gi ne nañu cérémonie boobee nag foo sàtti mbàtt mu tàkk ndax bëri na ay chaîne ci àdduna bi yoo xam ne ñoo ko doon def direct président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES daal nay wax ne fier na lool ci li nga xam ne mooy importance su événement bi ndax lii bokk na ci li nga xam ne dafay ñaax sunu soldat économique yi ba pare lii bokk na ci tamit lii sàmm sunu modèle ak sunu sécurité économique yéen a kaay gi ne na Cheikh Ba nga xam ne moo jiite CDC daan nañu koy primé ci diwaanu New York yéen a kaay libération daan nay wax ne African Leadership Awards li nga xam ne moo ko tax a jóg si motiver soldat économique am yi yéen a gi nee na l' excellence primée à ko journal bi tuddee yéen a gi di réew ko di jeex xëy dañu ñu en tout cas li am mooy ñeenteelu édition cérémonie de remise des prix African bi nga xam ne doon ñu ko amal diwaanu New York maanaam waxtaan nañ fa xam ne jëm na ci wàllum économie nga xam ne recevoir na Jibril Ngom mi na woon mes ne menteñ ak document yeewi askan wi ca diwaanu Matam ba pare déposé ay faux document yéen a gi ne na audience boobu nag bëri loo xam ne daan na si jip ndax ci photo bi Jibril Ngom ànd ak président Macky Sall gis nañu ab enveloppe bu grise boo xam ne ma ngi ci wet gi yéen a kaay gi di wal fajri nee na audience bi Macky Sall may Jibril Ngom loole nag mujjee naa nekk scandale d'état ndax yàlla bëggul ci boppam kuy war te Jibril Ngom mi maanaam ñenn ñi dañu ko jàppee ab traître yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Macky Sall mi nga xam ne moo recevoir Jibril Ngom mi ne woon mes na menteña ba pare déposé ay faux document yu yeewi askan wi ca diiwaanu département bu Matam ba pare nag ñëw ci biir APR kookee la Macky Sall moo tax ni ki démb gars yu baree bari ŋàññi nañu Macky Sall Assane Samb xëy jël xalimam nee na Macky Sall balle jël dóor ko ci ab tànkam li erreur de communication la ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk APR ni ki démb wane nañu seen naqar loola njiitu réew mi di Macky Sall moom dafay dëggal di daganal li nga xam ne moo jëm ci wàllum trahison ndax nag audience bi nga xam ne Macky Sall may na ko Jibril Ngom loole nag dafay firndeel ne daf koy féliciter di ko jaajëfal di ko encourager ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne Jibril Ngom moomee jëfoon na ko li nag mooy crise des valeurs dëggantaana di encourager ndaw ñi ci lu jëm ci wàllum trahison ak wàllum tappale loole tegewul fenn yéene kaay gi di laas xëy ci bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon lu jëm ci wàllum élevage wàllum sàmm gi njiitu réew mi di Macky Sall daal na nag jaajëfal jajj ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi yéene kaay gi di Le Soleil nee na ca daara Jolof promesse yi digg yi bëri woon na lool yéene kaay gi di Sud Quotidien ay miiru ñi nga lu jëm ci wàllum andiwaat poste premier ministre seetal na Macky Sall ba tey ci biir journal bi Ousmane Sonko njiitul Pastef moom nag dafa njort ne Macky Sall dafa bëgg a tas li nga xam ne mooy assemblée nationale organiser ay élections anticipées yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na Ousmane Sonko dafa njort ne Macky Sall dafa bëgg a dàq élections locales yi ba pare boole élections locales yi ak élections la yi waaye nag ñoo ngi vigilant yéen a kaay gi de Rewmi Quotidien ñu koy fekk am sudu soo na ci lu jëm ci poste premier ministre bi nga xam ne fas yéene nañ ko andiwaat nee loolee ñàkk ndax mi demutoon cee nga dikkutoon mbay daara te Sénégal yi dañoo sonn ba maara day te bëri na ay secteur yoo xam ne dañu ko war a lijjanti daar daara lu ci mel ni wàllum dem beeg dikk bi neema transport wàllum wér gi yaram gi wàllum pêche wàllum agriculture ndax barsa barsàq gi jamono ji ma ngi commencé waat ndax Sénégal yi ñoom seen bopp ñoo sonn moom Amsatou Sow Sidibé ci lu jëm ci coppate yi nga xam ne andi nañ ko ci magistrature bi nee na en tout cas li am ba des daal ab magistrat maanaam warul warul baraade li nga xam ne maanaam mooy dignité ma nee ma jomama yéen a gi di source xëy dañu xibaar naan ñu ci magistrature bi maire mu mag a mag daan na fay am am na ay magistrat yoo xam ne mënuñoo comprendre lan moo tax union des magistrats maanaam noppi ci yenn affectation yi yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naa ñu Rama Macky daan nay duuma Fatoumata Ndiaye ba xolam sedd ba pare nag di xaar ab plaintam yéen kaay gi ne na Rama Macky ak Fatoumata Ndiaye Fouta Tampé ci benn salon de coiffure fa la ñu dajee woona yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Gaston Mbengue ak kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko kaddu a ñaaw la ñi nga xam ne ñoo sant Sénégal maanaam bëri wuñu te bu ñu leen taaloon tamit maanaam du yàq dara ci réew mi te dara du xew ci réew mi yéen a kaay gi di libération nee na Khalifa ñaawlu na ko bu baax a baax ba pare nag di sàkko ñu jël ay daan lal ko ci ndodul Gaston Mbengue Ousmane Sonko nee na nag Macky Sall ci boppam moom la ñuy sàkko mu daal di génn publiquement daal di koy ñaawlu Thierno Alassane Sall ñaawlu na ko Soham Wardini ñaawlu na kàddu yi nga xam ne Gaston Mbengue yëkkati na ko yéen a kaay gi na Gaston Mbengue ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ko